ñu ngi rafetlu maanaam li ministre def fii ci Jobaas tey yi nga xamante ni vraiment événement bii ñu jublu ñu ñu passé nii vraiment euh, amoon amuñu woon benn liggéey parce que xam nañu fi mbir mi toll nii liggéey day jafe parce que nit ki day tal loo xamante ni da koy lekk mais du kii loo xamante ni peut être day ñawloog yooyu moo tax man ñawluñu woon mais daa xool loolu xam ni loolu vraiment bu leen bàyyee seetaan leen noonu rek du doon loo xam ne rafet la ba tax na léegi masques yi nga xamante ni moom la waroon a indi jabaas dane duma ko yóbbu ci beneen dëkk wala di ko commandé feneen te tayari jabaas yi nekk fi war ko mën a liggéey moo tax mu jël masques yi maanaam jox ñu ko ñun tayari jabaas yi te am nañ benn association boo xamante ni ñoom la ko jox jabaas gi yëpp yëpp wax dëgg yàlla moom barkeelu nañ ci di wax yëpp ba fii ba commune Tasset ci la ñu bokk rafetlu nañ ko lool kontaan nañ ci vraiment acte bi mu def parce que maire yëpp bu ñu defoon ni moom vraiment développement dina am. pour que li nga xam ne mooy ubbite école bi di waajaat comme ça ñu mën a jàpp ni élèves commune bi yëpp ak enseignant yëpp ñëpp ñi nga xam ne daal ay acteurs lañ ci éducation ñu mën a sol ay masques comme ni ñu ko diglee parce que loolu dafa bokk ci geste barrière yi. kon masque yooyu ñu ngi ko xayma woon ci juróomi junni waaye maire dafa ne pour ñu mu wóor ñu ni kenn maanaam du des ci ginnaaw day def juróom benn yu masque donc 6000 masques yoo xam ne euh, tailleur jobaas yi ñoo ko defar donc kon encore une fois maire dafa ñëwaat jàppalewaat beneen secteur ci ginnaaw bi mu jàppalee ñu yor kaaraange gi muy gendarmerie euh, ñi nga xam ne ñoo nekk ci wàllu wër gu yaram muy santé mais aussi accompagné woon na fi artisan yi muy ñi nga xam ne mooy tailleur yi te yii aussi ñoo ko defaat boo ko jëlee rek daanaka lu war a mat ci huit mille masques euh, tailleur Jobaas yi ñaw nañ ko dugalaat ko ci commune Jobaas donc loolu nekk loo xam ne aussi lu am solo la ndax permettre na leen ci jamono bi nga xam ne ah activités yi xaw naa soxe ñu am aussi ci lu ñu jàpp mais aussi permettre na ko tam mu wóor ñu ni mun nañ espérer zéro cas de Covid fii ci commune Notto ndax te disposition yooyu yëpp ñu ko jëlee. ah mun nañu rafet njort ni wax dëgg yàlla commune Noto dina dina ci génn bu baax a baax. boo xoolee euh, équipement yi euh, dafa euh, nekk pour élèves yi mais aussi pour enseignants yi di leen rassuré waat te ñoom sax mun naa ne comme ni ñu ko waxee keroog seen xel dal na ndax li ñu gis fii ci Noto kat. am na commune yu bëri yoo xam ne ak ah, gisuñu ko fa muy thermoflash yi lépp li nga xam ne daal vraiment mën na tax ñu prévenir mais aussi ñu détecter lépp daal euh, commune bi def na ko kon encore une fois ñuy le geste bi maire bi def parce que ñun ñëpp ay administré lañ donc euh, encore une fois c'est ça merci di rafetlu aussi taxawaayu monsieur le sous-préfet ndax moom tam guddeeg bëccëg mu ngi ci donc euh, encore une fois mu réceptionné loo bi comme ni mu ko waxee dina def répartition yi ci école yëpp kon encore une fois ñu le leen di sant leen gërëm. keroog ñëw na fi andi matériel li ñuy raxasoo ak ay masques. Je ko ci école yi ak thermoflash mu nekk lu dooleeku ci lu mu jot parce que bi mbas mi commencé le jóg andi fi li raxasoo saabu ay euh, lavoir andi lépp li war jox ko population yi mu ko andiwaat fi ceeb joxe ko jox ko assisté donc lii euh, bu président waxee ne nañu jàpp ci école yi ci reprise mise en charge des collecteurs territoriales wax ko donc maire répondre na ci loolu def na ba def li ëpp prévision yi parce que masque yi ñu ko calculer man mi ma calculer on avait besoin de 5000 et quelques donc moom joxe na six mille donc ça veut dire que euh, lépp lu ñu soxla ci masque tey mettre na ko à la disposition des écoles thermoflash yi noonu li ñuy raxasoo noonu. reprise bi dina am condition yëpp euh, dinañ ko réunir. man mi dinaa def tournée xool un peu école yi ndax euh, matériel bi ñu joxe mu ngi fa kon ñu ngi koy sant bu baax monsieur le maire le ministre Alioune Sarr euh, ci taxawu bu mu taxawu askan wi ñu ngi dara xelu parent d'élèves yi xamal leen ne en tout cas reprise bi li ci war yëpp maire def na ko seeni doom euh, li war ci ñoom yëpp pour ñu aar leen ci mbas mi en ci école bi Euh, maire génne na ko joxe ko kon loolu euh, ñu ngi ko ci sant bu baax di dalal xel yi di ñaan ñëpp xale yi dem njàngi si te ñu am benn jafe-jafe